mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax amaat mbégte teew fii ci 30 minutes chrono ci solution info TV tey jii ñu dellusiwaat fa yéene waxtaan ak yéen ci actualité bi tey nag li ñu gën a waxtaanee ci sunu cronique mooy euh, tey di 2 mai 2 mai jour pour jour 30 jours ba Jomaay ak Sonko nekkee ci donc classique mim réew di Sénégal jiite réew mi. parce que le 2 le Diomaye def prestation de serment di 2 avril tey jii di 2 mais mu doon weer ñu fa yéene xayma ak a natt liñ fi def dina dikk ci rapport Cour de comptes dikk ci suuf si ak mbiri of nag Mame Mbaye kii di Pape Malick Ndour ñu ci tudd ak ñeneen di sant yàlla tout d'abord ci Diomaye président parce que Diomaye président ci le 2 avril mën na am ñetti weer ci ginnaaw wala ñaari weer bu ñu ko waxoon ñu bëri du ñu ko gëm loolu tax ñu ne suñu borom rek moo mën affaire Dieu fait bien les sos yàlla rek moo mën mais nit mënul dara bu doon pexe kii di président Macky Sall ak pexe ñenn ci opposition bi ak ñenn ci réew mi di ay tappalekat féete ci wàll wu ne mën naa am waxtu wi Diomaye du nekk président mais tey bu nee jomaay def na ci bopp réew mi weer volonté peuple Sénégal la ak taxawaay bi ñu am loo tax peuple boobu bu leen fàtte mukk ci àddina peuple boobu bu ñuy wax patriote duñu wax rek ba Pastef mais dañ naan doomu Sénégal yépp ñu nekk bitim réew ñi nekk ci réew mi mag ndaw góor ak jigéen ñu jël la projet porter ko au pouvoir pour apporter des ruptures ndaw ñooñu ak doomi réew mi ñooyu dal leen war a jaajëfal parce que tamit bu li amee askan wi la buur mënul faj fal boppam yàlla mooy sàkku nguur waaye askan ñooy fal nguur loolu mu doon li ñu félicité peuple sénégalais mu doon loo xam ne sag la ak siggi ndaxte waxtu wi réew mi mënoon na toll fu ne ndaxte bi naan dañuy dem élection am ñu doon wax le 2 mai 2 mai bi am na ñu ko jàppoon pour ñu war ci def maanaam ci mois de mais bi pour ñu mën ci def élection présidentielle am na ñu ko xalaatoon ci jamono am na ñu xalaatoon mois de décembre am na ñu xalaatoon maanaam mais jàpp élection ci waxtu bi ñu ko jàpp le 24 Diomaye le 2 avril mu def prestation serment loolu yàlla main de Dieu mais yàlla volonté du peuple léegi nag ba mu fi toog ak tey jii wax ji bari na cooli bari na. waaye nag bu wax ji bare ñee la maanaam bañu daaw ya du nangooguñu guñu nag dana nangu bañu daaw bu nangoo ren seen pexe moo jub mais bañu daaw ya ñoo yor coow li te wala fi dan na coow la ca pindum teen ba ñu amul baak ñoo ko waral waaye ñi am baak dañuy root dem ñi am baak dañuy liggéey mooy ñan mooy Sonko ak Jomaay bari na liñ fi def ci un mois yi man dama jàppoon ni mënuñu ko man dama jàppoon ni mënuñu ko parce que un mois lan ngay def mooy da ngay def di taxaw seetlu fa ban yoon ngay jaar ci ñoo xam ne mosuñoo jiite nguur doon ay anti système mosuñu nekk ministre mosuñu am pal goo xam dafa jóge ci njiitu réew mosuñu dugg ci pale bi di liggéey mosuñu nekk primature nekk dans l' administration tey jii ñu retrouver wu au pouvoir loolu dama ne ñii ñi ngi jël seeni i marque te nin ko séddalee moo neex mooy Diomaye comme ni ma ko waxee ci titre bi mi ngi gérer la nation kii di Ousmane Sonko di gérer administration bi di doxal di coordonner mais patriotes yi ñoom ñooy gérer opposants yi noonu la ko waa Pastef fi séddalee maanaam xereñ gi ñu xereñoon ci opposition ba mën a jalgati nguuru Macky Sall jàllar bi ko jëlee ko fi jàggi ko ruur mais xereñ googu sax la ñuy wane ci gestion pouvoir parce que li Diomaye war a def mi ngi koy def li ko war a def mi ngi koy def mais patriote yi tamit li ñu war a def ñu ngi koy def te loolu stratégie bu baax la parce que li ñu tàmmoon ci Sénégal mooy bu ñu gungee nit ba mu nekk pouvoir dañ koy seetaan. mais li ñu nemmeeku ci projet bi mooy ñi porter le projet au pouvoir les 54 pour cent wala plus ba léegi ñi ngi jàpp ci projet bi pour mu dëgër ñi ngay dégg ñii dingat yépp di ay journaliste di ay politiciens di ay diw ak diw diw mooy ñi bañoon projet bi dem au pouvoir mooy noonu démb ya ba tey mënuñoo nangu te du nangu mukk ci àddina ndaxte noonu noonu la noonu noonu la bu sañoon loo dugg échec bu sañoon même bii bëgg-bëgg lu sax du bëgg parce que xolam moo dul nangu te projet bi ñu bari danoo am intérêt pour porter ko au pouvoir lu tax man la ci weer wi liñ ci def sax dama jàpp ni njàmbaar la benn mooy taxawal gur gouvernement vingt cinq ministres yenn ministre c'est pas des ministrons c'est pas ay boll puudee c'est pas des yambar fanaanoo yoo xam ne ñoom lañu taan def leen ministre mais ku ne fan la dénk mate nga ko mën nga ko léegi nag nan nga koy doxalee ba bis ñëw ñu mën la xayma parce que nag Sénégal xam-xam yàgg na fi mën a liggéey yàgg na fi mais tappale yàgg na fi mais ñii li ñu wanagum ci un mois mënagul leen xayma ba xam ni ñi ay tappalekat lañ déet te képp ku naan ñëpp a yem rek dafa fekk di ka jiitu ca kanam dalaa neexul waaye ñëpp mënuñoo yem ñëpp a yem foo ko dégg ka ñu jiital dalaa neexul rek léegi nag taxawaay boobu ñu am ci ministre yi ñu ngi leen di xaar di leen déglu waaye bin kenn waxul càmbay beneen bi ci topp ñu teg ay direction fal ci ay nit nit ñi ñee appel à candidature man appel à candidature mën naa ci ànd ci yenn ci poste parce que am na post yoo xam ne profil yi ñuy dégagé il faut que ñu def appel ak candidature natt ak xayma après jox njiitu réew mu tànn waaye bu dee nii amul loi bii prévoir loolu est-ce que danoo war a jalgati yoon pour mën a def appel à candidature est-ce que danoo war a bàyyi tappalekatu nguuru Macky Sall yi ay rapport topp ci ay direction ay ministère est-ce que da leen a waroon a bàyyi seen poste naan dañuy def appel à candidature fii ak at bu boobaa rupture du am bu boobaa duñ xam fu ñu jëm te nag gunge. buñ koy wax ak nga mën a àndal mënuñu fi jëlee nguurug président Macky Sall ak liñ fi def yëpp ak liñ xeex ak ñoom yëpp ay nit faatu ci ay nit gaañu ci ñi ñàkk seen liggéey ñii ñàkk seen teranga ñu falu ci nguur gi nay def appel à candidature jël directeur yu Macky Sall yi bàyyi leen fa ñu nekkoon ñu kon nekk fa diggu nàndar loolu xel xalaatu ko looloo tax tey jii nomination yi Cheikh Bamba Dièye Fadilou Pape Alé tey jii bu ñu doon lim du jeex le fait ñu nommé leen ku mu ci ñoom dal laa dénk fa nga mëne fa nga mëne fa nu jàpp ni mën nga doxal foofu ñu nit ci mbedd mi rek tànn ko te dama gëm ni sax ji nga ñi nga àndal ba falu bu nu amul woon qualité baaxuñu doo falu parce que benn lam du yëngu mais dafa fekk ni pour projet bi mën a egg au pouvoir benn Cheikh Bamba Dieng da cee ànd benn Fadilou Keita da cee ànd mais benn Pape Alé da cee ànd def ci lu kenn deful mais def ci lu kenn dajul moom ak ñoom Dambo Pa Cheikh Bara keneen ak keneen tey boo doon lim du jeex ci ñoo xam ne tey jii dafa amoon jamono joo xam ne waxal Ousmane Sonko ak taxawu usman Sonko ñoom Maître Tall ñu daan nekk ci plateau ci mbiri Adji Sarr yombul woon mais ñooñu tey bu ñu demee ba mën a convaincre askan wi mooy askan wi da leen a wóolu. si seen crédibilité ak seen kàddu ndaxte boobu kenn amul firnde ci ni Sonko moo def wala deful mais dañoo wóolu ñu doon wax rek kon ñooñu tey jii buñ demee ba porter le projet au pouvoir ñu ne noo ñun àndaloon di xeex ba projet bi egg fii nan leen fa bàyyi dem defi appel à candidature def appel à candidature ñu mës a gëm projet bi xam ne ay carriériste lañ ay opportuniste lañ mës ñoo gëm projet bi ci système bee leen bokkoon. mucc ñoo bëgg Ousmane sonk ak yi nekk ci bopp réew mi ñooñu nekk am ay diplôme yu wër wala ñu nekk ay doomu kilifa yi fi nekkoon dem jàngi ñëw postule ñëw gagné post yooyu mais ñoo ñooñu mën nañ ko gagné ba pare nekk ay élément système bi infiltré la anti système bi maanaam ñi bokkoon ci système bi démb parce que fii système bi dem doomu waa parti socialiste la doomu waa PDS la ñu dem ñooñu. jàngi ñëw di def appel à candidature ñu gagné poste yi tey ji lan doon bañ ci système bi ñoom ñu ñëw di ko defaat kon tey ji ñi gëm projet bi gëm ne Sénégal mën na dox beneen doxin ci anti système nan leen jël teg leen fa léegi nag bu leen fa tegee ngalawaay nan leen bàyyi ñu liggéey léegi nag bu ñu demee ba jamono lan doon xaar ci ñoom defuñu ko ñu dàq leen amul ministre amul directeur amul ku mënti doon parce que nag dafa am lu ñu naan contrat d'objectif nit ki boo ko falee ci dara da nga ko war di xayma ci ni bi mu ko dénkee lii ak lii ak lii ak lii léegi may naa la fekk at li ma la dénk ma xool noo koy doxalee bu dee ni def na ci ay résultat wala fi dañ ne ku yokkul da ngaa wàññi bu dee ni dafa yokk ba mbir yi dox mais ñu bàyyi ko fa xam ne waa ji jàmbaar la yéex naa ñëw mais bu dee doxul ñu jële fa teg fa keneen parce que Sénégal nag li fi nekk ci ressources humaines ak ay compétences bari na. mais nag bëgg a jël lépp def ko appel à candidature alors que nag tey jii mi Diomaye di Sonko mais ay politique moo leen fal léegi ñu dem ba nekk ci pouvoir bi ne dun politique loolu mooy wane ni kon kon lan doon def baaxul politique baaxul alors que politique baax na defit wi nu ko doon defee Sénégal moo baaxul mais tey bu ñu gisee tey jii taxawaay ñoom dàmboo ñeneen ak ñeneen ak ñii ay may Maymouna Bousso ak ñeneen ak ñeneen mais ñooñu ay jàmbaar lan léegi nag noon yi nekk ci tous bi xam na ñoom dem nañ fukki at ñaar wala ñu def lu ëpp fukki at ak ñaar yàq réew mi sàcc alal réew mi def li ñuy def yëpp léegi nag ñooñu la ñuy déglu pour bañ di fal yenn nit yi naan ñooñu na leen ko gisee mais ñi gëm projet bi fal ko à 54 pour cent ñooñu amuñu problème ak ki ñuy fal kundul fal ñooñu xam ban problème lañ am mooy ki ñuy fal est-ce que mën na wala mënul est-ce que am na les compétences nécessaires est-ce que bi ñu defee enquête de moralité ak de personnalité est-ce que wala jubul l'essentiel mooy. na ànd ci jub jubal ak jubbanti mbir yi dox li fekk waa ji mi ngi jub di jubbanti mbir yi di dox mu am lee compétence nécessaires pour nekk à un post mais post boobu na nga ko fa bàyyi mu dem liggéeyi ñii di ngeen ay Pape Alé di di ngeen ay Massamba ay ñu mooy noonu daaw ya rek mus ñoo bëgg Pape Alé mus ñoo gëm Pape Alé su ñoo bëgg Cheikh Bamba Dièye mus ñoo gëm docteur Cheikh Dieng te ñii bu ñu doon politique mais lu doy na aéroport du nga ko dëkk Cheikh Bamba Dièye ñu wante dëgg Sonko Diomaye bu ñu doon rek fal pour politique. billaahi duñ leen fal fa parce que poste yooyu xam na ni muy demee xam na ni muy demee da nga fay teg sa nit pour mu recruter la say nit tey ji docteur Cheikh Dieng PDS la nekkoon du du lii tey ji mi ngi nekk ONAS kon il faut que ñu xam fi ñuy taxaw bañ di déglu ñi gëmul woon projet bi bëgguñu ko woon bëgg tey ji ñoom tey ji danoo nekk à l'école de l'opposition day jàng na lañuy opposé woo boo gisee tey ñu bari ci ñoom au bi lan lan aji mbergaan kanute ak kan ñoo leen génn fii di wax Abdou Mbow ak ñenn noppi nan opposition yombul li Ablaye Wade doon opposition ak sukuraata yam yombul li Sonko jomaay ak Sonko ak jomaay daj lu tax ñu mënoon kaa daj xam mooy lan mooy doonoo mës ta mos nguur tàmm coono tàmm tàngaay wi mais ñii mos nguur fukki at ak ñaar kilim yi indemnité yi commission yi ah ji mbiri tëdd muy dox tëdd muy naaw naaj bi da nga koy tàmm de opposition yombul de la nga jot a liggéey ak sa njaboot nga jël ko di ko séddoo ak say militant mbir yi di génn te dara du dugg loolooy opposition Sénégal de loolu tax kuuru wutu mburu ci taal xam ne mburu daj nga coono waaye képp ku remplacer Sonko ak Diomaye ci opposition xam ne opposition yombul te acte yi ñu teg. ñi di ngeen yëpp di wax maanaam ñàkk am ci luñ jàpp moo tax ñu naan ay appel à li gënoon kay mooy ñu ne diw fan ko teg waru fa nekk ndax lii ak lee mais dul amul ku lay jox explication ci loolu teg ci Diomaye en tant que le président de la République li mu koy ñaan mooy képp ku mu war a fal na la fal parce que loolu yoon a ko may décret la bu yàlla sun borom def ci loxoom képp ku mu war a fal na la fal l'essentiel ka ñuy fal na liggéeyal Sénégal ka ñuy fal na ko matee na ko mën bu ko mënul ñu dàq ko jële ko fa mais mais di di lox di tiit naan bu ma leen nii leen koy gisee non c'est pas ça feeg yaa ngi def lu neex Sénégal Sénégal ànd ak ñoom waxuma noonu dem bii de waxuma noonu dem bii dem la la fi njëkk a def tukki fan la dem Gambie wala Mauritanie Mauritanie la njëkk a dem mais Mauritanie enjeu bi mu am suñ koom kenn da kaa mën a weddi nga gis tappalekat yi taxaw weer ñu naan président bi dafa war a jaay avion bi xanaa day dox xanaa day fee ci géej gi xanaa day jël saret xanaa ay gileem lay war jëm Mauritanie ñoom Abdoul mbay ñoom Mamour Ibra Kane te ñoom koo ci gis mu ngay dawal kàr kàr boo xam ne xamoo fu mu ko jëlee ci àddina da ngay gis ku ci nekk directeur général société directeur général société wala entreprise jiite ko naan avion jomaay bi diw nii te moom mi ngi dawal oto bi jar cent millions. te bo moment bi mu dawal oto bi cent jar cent millions wala cinquante millions yor portable bi jar presque ay millions kër ga mi jiite am na ñu fa toog ay weer fayekuñu kon moom lu ko tee jaay oto bi fay liggéeykat yi yi est-ce que oto bi jar cent millions nga ne yow sa kër bi nga jiite dafa am crise léegi ñu ne léegi crise boobu li koy réglé ñu ne état léegi oto bi doo ko jaay dem jënd oto vingt millions wala dix millions. oto du pour dem ak dikk rek koo ci gis mi ngi jooy mais train de vie bi mu yor kenn xamul mu toll tey ñu ne jomaay mais avion yi président bu nekkul avion kan mu yëg avion président bu amuloon avion war mën a sax cotiser mais jëndal ko avion na ko demal parce que su suñuy yitte lay dox bu doon bo boppam lay doxal bu doon njabootam lay doxal bu doon ma sàmba lay doxal wala ma demba waaye Sénégal lay doxal mais kooku danga ko war a téel léppam lekkam naanam wér-gu-yaramam transportam lépp da ko ko war a gàddul l'essentiel mooy li muy dox na nekk suñu yitte na nekk suñuy intérêt mu jige fa de a gaz ba ca Mauritanie loolu jarul jël avion suñu diggante ak Mauritanie ci Mauritanie ci wàllu géej gi accord de paix yi warul jarul jël avion Gambie ak lan fa dox woon ci paix en Casamance ak bant ba ñuy dagg ca Casamance ak suñu diggante ak Gambie tey jii waxuñu loolu mu dem Guinée Bissau Guinée Bissau suñ diggante Casamance waaye waxuma la suñ diggante Casamance mais tey ji la paix en Casamance tey ji ñu wax jëm ci wàllu napp gi ak les licences de pêche ak ñun natt gi ñun ci lottee ñu sekk kaak suñuy nawle tey ji bu ñu demee ba Sénégal soxla jën di ko jéggaani Mauritanie wala mu koy jéggaane Guinée Bissau mooy wane ni suñu régime yi fi nekkoon danoo trahir danoo sàcc suñu alal jaay suñu géej toroxal suñuy nit tey ji jomaay dem di lijjanti loolu pour géej gi mën a dox pour que xale yi duñ mbëkk di dem bitim réew géej gi mën a dox ba ñu dëkk ci tefes yi mën a doyloo tey géej gi ak gi nekk ci géej les ressources halieutiques ñu mën di ko jariñoo ay nit naan ay avion xew na fi ci weer wi ci koo xam ne tey lay doog def weer tey lay doog def weer tey jii yeneen mesure yi ñu jël ginnaaw tukki bi xoolal tey jii dogal bi gën a rëy ci bi mu jëlagum mooy suuf si ni ko doon tong-tongee ci réew mi benn nit am ay hectares yu dul jeex benn nit am ay hectares yu dul jeex ci réew mi waaye sàcc ndënd yomb na waaye fi nga ko tëggee moo jaxe xam maa ngi doog a comprendre lu tax yenn nit yi bëgguñu woon nguur gële jeex parce que nguur gële ne maanaam tappale yi ci nekkoon ak sàcc yi ci nekkoon ak tong-tong gi ñu doon tong-tong alalul réew mi ak suuf si kenn xamul mu toll ci littoral bi ñu arrêté travaux yi kenn waxul ni la fa nekkoon du dëgg mais nan ko arrêté xoolaal ko xayma ko côte ouest côte est bi ñu xool ko xoolaat réew mi xoolal xew ca Mbourkat ak feneen ak feneen le président de la république en tant que inspecteur des impôts et domaines te ñoom ñu diggee woon ko démb ni bis bu nu jotee ci réew mi mbirum suuf mi dinañ ko lijjanti tey jii ñooñu jug ñi ëpp ci réew mi dañ cee ànd ñi ko ñii di ngat li jëm ci wàllu suuf si yëpp. suuf si ñu séddale ci réew mi ay kilifa jël ko ci réew mi seddoo ko benn doomu sénégalais yi di bëgg dee ci luyaas mënul am suuf cent mille yi ñu doon wax kenn mënul xam fa la mujj boo demee ci littoral bi tey domaine public maritime bi ñu séddoo ko def ko ay propriété léegi domaine public domaine privé maritime la la nga ko def ci décret wu président Macky Sall mi trahir réew mi dem yoonam ay nit taxaw di défendre xoolal lii peggub géej gi nu mu mel bande filaawe ñu dagg ko nit ñi mënatul féexlu xale yi di dee ci géej gi parce que amatul fu ñu jëm ñu jël ko jaay ko étranger def ko ay auberge koo xam ne yow fa nga juddoo amul géej dégg sax amu fa nga ñëw ndakaaru fuuyu naan les pieds dans loolu ñu bëgg ñu tong tongee réew mi ku leen bàyyi woon barke Mouhamed Lalaw di nga ñii di tonkangee réew mi Sonko ak Diomaye bu ñu fal woon di nga gis ñu sëkk géej gi dëkkee géej gi ndax bëgg suuf sëkk géej gi laala barke Mouhamed ndax bëgg suuf léegi ñu ne noonu dañuy bàyyi noonu ñii ñëw na rupture anti système ñii rappi rappi ñoom ak seen i journaux ak seen i presse ñoo xam ne da leen doon séddale suuf si mu mel ne dafa am ay sénégalais yoo xam ne ñoom mun nañ am kër mun nañ am suuf am na ñoo xam ne bu doon sax man nit day ut suuf pour am kër nit ki dafa war a am droit fu mu dëkk mais des centaines d'hectares benn nit am ko lan la koy doyee lu dul jaay ak tappale suufu baykat yi ci àll bi ñu nangul lépp jox ko ay étranger léegi ab nguur ñëw ne loolu dañ koy seetuwaat xool ko te jomaay ni mu koy doxalee noonu la loolu tax fal président xale baax day sawar day sawar dem bi mu dem ca mburkat day sawar te loolu lu baax la de nay jugal boppam di bettaate parce que Descos gi ñuy wax naan moo def arrêt travaux yi Descos xanaa 12 ans yi liggéeyul Descos xam lu mu fi nekkoon baadoole yi maanaam Modou Diouf wala Ablaye mi tabax këram ci benn kii ñu dem fa arrêt Descos ñëw toj ko ñoom daal mënoon noon toj këru baadoole yi mais ñi fare ci bopp nguur gi den tabax ci littoral bi ak ci peggub géej gi Descos yoonam nekku ci woon nguur gi ñëw ñu ne non li ñu doon benn da koy def ñaar lan lañ doon xaar. mais jën ca bopp ba lay nëbee lépp Macky Sall la lépp président Macky Sall la ànd ceeg ñoom Farba ak keneen ak keneen do maanaam réew mi disparité ak inégalité bi fi amoon maanaam ñii di donkaase di gundaandaat di noo nekk ci kaw ñenn ñi moom dañuy xaar dañuy xaar ñoom tey jii nag loolu lañ bëgg a faj ñu gis ay nit yëkkat seen kàddu lu na ñi ko ci wax ji nga ñoon ñi ko ci wax mooy borom suuf yi ñoo sàcc suuf si. ñi bañ ñi bañ mbiri leer yëpp ñoo sàcc suuf ndaxte ku aj ku teen ñoo sàcc suuf si sàcc suuf si loolu nañ ko leeral jël suuf si delloo ko doomu Sénégal yi képp ku tabax ci peggub géej gi te waroo tabax nga yor boo wala nga yor propriété boo mënti doon wala nga yor titre foncier ñu xool nañ leen koy lijjantee ñu bari ne naan da ngay dem ci yoon pour ñu delloo la ci suuf parce que da ko amoon ci yoon déedéet am ci yoon ak dem uti ay kayit ci yoon du benn képp koo xam ne am nga suuf wala am nga kër wala tabax nga foo warte tabax nan ko nangu waaw kon ñu ngi leen di félicité ci loolu doon bañ di eh, sóoraale noonu yi na leen di déglu nag na leen di déglu ndax noonu jar naa déglu ndax day tax nga xam fa ngay teg sa tànk loolu nag sax moo dem ba indi rapport yi of nag ak Cour des comptes ñu tudd ci ñaar ñoo xam ne ñun yàgg nañ ci wax te tey ji li xew dëggal nañu mooy Pape Malick Ndour ak kii di Mame Mbaye Niang Pape Malick Ndour Mame Mbaye dana wëb sàccee rek ana xar mi ñu bàyyi buum bi maa ngi doog a xam ku mel ne Pape Malick Ndour lu tax buggul nguur gi jeex Mame Mbaye lu tax buggul nguur gi jeex ak ñeneen ak ñeneen parce que xam na ni bu nguur gi jeexee ñu sàgganu nguur gi bu jeexee ñu sàgganu ñoom seen passage au service bi mu jeexee du dañoo génn rek ci kanamu presse bi nga ñun defu ñu dara ñun ñun kenn benn rapport épinglewul yaa na xat mi nga bàyyi buum bi yow defoo dara ñaata ministre ñoo fi def passation dem seen yoon yéen ngeen def passation yi rek takk rajo yi telli telli gëm ni na woon fa woon di porte presse nakate looxoor yi am ca Prodac ak domaine agricole communautaire yëpp seen loxo laal na ci ñu doon jot alal joo xam ne waruñu ko jot lëkkaloo ci ak ay banque ay green 2000 ak lu ne ñu dugg ci Mame Mbaye Niang bëgg a créer confusion ci bopp sénégalais yi mooy lan euh, mbiru OFNAC seetal na ma ci moom mbiru diffamation bi Ousmane Sonko la jël gi def ko problème OFNAC mais tey ji bi rapport yi génnee billaay ci leen xam ne sàcc nañ yomb na waaye fi ñu ko tëggee moo jafewu léegi nag alal jooju lu ñu war a lijjanti la parce que lu tax procès wu Mame ak mm, Ousmane Sonko bëgg ñu woon dara leer kii di Clédor Sène ñëw na indi ay dossier mais bëgg a nekk yi mais ñu bañal ko ko Birahim sekk bind ci livre 34 milliards Prodac 29 la mais Birahim 34 milliards Prodac ba tey jii woowuñu Birahim sekk na ko mbiri Prodac bi li nga ci bind fan nga ko teg li ci bind fan nga ko teg léegi nag loolu lépp tey jii moo commencé di leer. ak délai ñu ci doon parce que bu nee Prodac do programme bu am solo la ñu ne nan créé ay DAC domaine agricole communautaire domaine agricole communautaire lu ëpp fukk ñu waroon ko réaliser ci nguuru Macky sàll ñaar rek ñoo ci pare mooy yaakaar naa bu Kër Momar saar ak bu CFA bu ma juumul ana yeneen yi ak alal ji fan la dugg ci programme boo xam ne tey ci wàllu mbay bu buñ ko tëraloon tey jii te nga jaarale ko fan ko war a jaarale xale yu bari dinañ am xëy xale yi di jaay gerte. di jaay ay tàndarma ak di taxawaalu ci dëkk bi ak di jël géej gi duñ ko defati mais ñu jël lépp fob ko def ko seen moomeelu bopp ñu dénk leen ñu foog ñu ñoom ñoo ko moom di telli telli lu ne ñu dugg ci mais tey ji sàgganu nan loolu tax man binnee Mame Mbaye ne kii di Pape Malick ñu génn passation rek ñoom di àtte seen bopp di def justice populaire tey ji dem leen wuy ji ñu xam lan moo wundu tey jii seen gestion ci Prodac ak seen gestion ci domaine agricole communautaire yi parce que di fàtte ni ma mbay moo nekkoon direct moo nekkoon ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour nekk coordinateur Prodac mais ma xam ne rapport boobu ñu bëri ma foog ni lu bees la mais ministère des finances bi Amadou Ba jiite woon mais ñoo defoon seen rapport audité Prodac gis ci ay loxoor ci inspection général des finance ñu naan ko IGF Ousmane Sonko ci baat boobu la juumoon kenn waxul Ousmane Sonko waxul dëgg de Ousmane Sonko dafa jaawale IG ak IGF te le député député bi kii Falwaay bu Pastef mais taxaw na assemblée nationale yor rapport bi ci loxoom ñu gis fi ay vidéo yi Mame Mbaye di wax naan rapport bi am na après ñu gisaat ay vidéo yu mu naan rapport bi amul. léegi nag ñoom nañu leeral foofu fa la jëm te tey boo gisee rapport yi dan lay wax rek bu Prodac ndax moo ci gën a siw ak yooyu mais li Cour des comptes génnee ak kii di nag mais dan réew mi da nga ko doon tong-tongee sénégalais lu tax ñu ñàkk lu tax sénégalais mënuñoo yor lu tax ndóol gi bari ci réew mi lu tax inégalité bi am disparité bi am mais mooy wane ne alal jiy dugg ci réew mi yi daawuñu ko gis gars yi dañ daan sàcc sunu xaalis di tong-tong sunu xaalis di ko séddoo benn minorité di jëfandikoo les largesses du pouvoir de Macky Sall lépp lu dugg ci réew mi ci programme ñu seddoo alal ja dem seen yoon foogoon ni nguur gi du jeex waaye lu tëw feeñ daa yàggul lu tëw feeñ daa yàggul kon tey jii lépp loo xam ne tey génnee nañ ko ci rapport ñu épinglé ay nit léegi nag ñu tudd ay nit ci rapport ne veut pas dire ñoo def waaye nit ko defee ci Prodac nan ko defee noonu ci xaalisu 750 milliards yi ñu defoon ci inondation yi plan desenal de lutte contre les inondations nan ko leeral Mansour fay ah Mansour Faye moom mi ngi ci lépp mu ngi ci ndox mi mi ngi ci Covid bi. mi ngi ci infrastructure yi mi ngi ci lépp nan ko leeral beneen bi ci topp nañu leeral xaalisu Covid 19 bi xaalis Covid 19 lu la ci wax am na lu la nëbb jamono joo xam ne imaginez ay nit yuy def dialyse dialyse ak li jëm ci feebaru réunion nu mu mettee ak nu mu faagaagalee ñi mu dal ak coono yi ñu ciy am pour faju gars yi di ci dil quoi. benn kit bi jar huit mille mais ñu surévaluer ko ba muy jar ay quarante mille pour mën di lekk xaalis bi ci ñoo xam dañoo am feebaru réunion ñu waroon leen dimbali maanaam nit ñi boo leen li naan nit ñi ku leen juróon yërëm leen mais ku képp koo xam ne sax yalwaankat boo ko mënul sax yokkal nga bàyyi ko ak li ko suñu borom jagleel ci sa gëm mais comme ay tan quoi day fekk meddi ñu koy lekk yàlla nan ma bal ci kàddu gi Sénégal li fiy dugg ci ay milliards ak li ñu voté ci budget ak réew mi ni mu riche ak ni nit ñi ñàkkee loolu il fallait ñu xooloo xamoon lan la looloo tax lii nguur gu dugg na leen ci sénégalais yi jàppale ñu leeral alalu réew mi ñen ñoo ko jël même buñ fii def benn mandat mais na leen bàyyi ñu liggéey ñu leeral lépp ba bu ëllëgee ñun buñ ko jariñoowul suñuy doom jariñoo ko mais il ne faut ñu bëgg leen a pressé non gaaw leen yeneen fi waxoon dund gu waxoon mais balaa nga naan naam jang cay ne ji nga réew mi dafa bari ay urgence ji nga sàcc yi ci réew mi nii na leen jàpp léegi nag booy Pastef fi nit koy defee baax na li ma wax sànq ci titre bi mooy Sonko gère la nation Ousmane kii di Diomaye gère la nation Sonko gère l'administration les patriotes gèrent les opposants waaw loolu loolay dëgg léegi nag Ablaye jeex na titre bi maa ngi ko jëlee ci Facebook bi ci benn page bi ñuy wax Ibra Diop Ibra Diop ci laa jëlee titre bi mu doon lu intéressant ni mu ko waxee noonu moo tax tey bi ma ñëwee ça m'a inspiré kon Ibra di ko ñaanal ah, ci inspiration bi ak taxawaay bi ci Facebook bi di ko ñaanal jàmm euh, di gërëm Ablaye Diallo El Hadj Modou Diouf tey ñoo nekkoon ci régie bi. di ziar gaay yëpp ñoom ña nga ca màggalu sëriñ ab Lahad gi lépp luñ fa ñaan rek yàlla na ko suñu borom nangu euh, kon beneen alxamis ñu dikkaat ci beneen 30 minutes chrono Omar Bun Xataab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi mbokk yi di jégalu ñëpp jërë ngeen jëf.